ci nuyoo bi ne dama ci jiital rek borom kër gi Pape Thialy Soy di ko ñaanal jàmm ju bare bare bare di nuyu sama gars yi rek Mbaye Babacar nuyu naa la jërëjëf Ndeye Mbacke ñu ngi lay fay ñu ngi nuyu bu baax a baax suñu xarit yépp yi nga xamante ne bii ñu ngi ñuy topp ci Leewtoo TV tey nag xam nga ne moom mooy euh, le 8 mars di bis bi nga xamante ne bii moom la ñu jagleel jigéen àdduna bi ñu ci ndokkeel bu baax a baax jigéen ñépp ndax ku nekk xam na ne jigéen mooy yaay mooy rakk mooy mag mooy soxna mooy ñooñuy toppatoo bu baax a baax ba tax na ñu ngi leen di ndokkeel bu baax a baax ci journée 8 mars bi nga xamante ne bii mooy journée mondiale de la femme rawatina suñu maman yi nga xamante ne bii nag ñooy suñu xaritu bopp yi ñu ngi leen di ndokkeel di leen ñaanal jàmm ak salaam. Assane Waala nuyu naa la. Ndeye Mbacke fay naa la di nuyu Baye Babacar di nuyu également internetu Leewtoo TV amaan mbégte jàkkaarloo ñoom. mu ngi noonu di leen fàttali ba léegi ah seen revue de l'arène euh, Huile Jador moo leen koy may. lundi 8 mars 2021 journal suñu lamb xëy xëttam mu njëkk Alioune Sène Alioune Sèye 2 moom mi nga xam te ne moo nekk puncheur du waar la guerre a des arguments pour battre Eumeu Sène Alioune Sèye moo yooyu le kàddu moom mi nga xamante ne bii mi ngi nekk écrit waalo nekk ku jege lool ki nga xamante ne bii moom mooy Lac de Guiers 2 nee na Lac de fi mu toll nii mi ngi lal ay pexeem am na ay pexe ya nga xamante ne bii euh, mën na koo dëggal ngir daan ki xam ne moom mooy Eumeu Sène incha allah bisu la 4 avril dëgg mbay comme ni nga ko waxee Lac de Guiers euh, Alioune moom mooy lieutenant Lac de Guiers foofa sa écurie waalo moom nag dafa xëy euh, séq waxtaan ak journal Sunu Lamb lu mu wax nee ne Lac am na ay argument pour battre Eumeu Sène ñoom ñaar ñi ngi war a daje le 4 avril bi di ñëw mais Alioune Seye junior moom amul euh, yaqeen ne Lac war na mën a daane Eumeu Sène nee na nag le jour ji Lac dina vrai dina wane vrai visage ca naka noonu Eumeu Sène Lac de Guiers 2 Modou Lo loolu adversaire commun mu mel ñoom ñaar ñooñu ñëpp ci nekk do jot ngaa laalante ki nga xam te ne mooy xarañ loolu. waaw mi dafa nekk ci digg bi laale na ki nga xamante ne bii moom mooy Lac de wante laale na ak ma Sène ku ci nekk xam ne ngay saf parce que ku ci nekk bëre na ak yow mu nekk mu nekk mu nekk ñaari adversaire yi nga xam ne ku ci nekk euh, Modou Lo am na lu mu jëflante ak yow Assane dëgg la Mbaye Eumeu Sène Lac de Modou Lo leur adversaire commun nee na Eumeu Sène ak Lac de Guiers daal ñoom ñaar Modou Lo moom mooy seen adversaire commun ndax ñoom ñaar ku nekk jot na laale ak Modou Lo seen Sène jot na laale ak Modou Lo deux fois ñaar yooyu yëpp daf ko perte Modou Lo daane na ko de 31 janvier 2014 daane na ko également dernière fois dernière seen dernier combat bi le 28 juillet 2019 boobu la jël roi bi ci Euh, Lac de Guiers également dajal na ak Modou jot na nil seen première fois le 4 euh, avril 2011 mais deuxième fois bi Modou moo ko daan le 28 janvier 2018. Mbaye Babacar situation très tendue du pays et accusation ki nga xamante ne mooy Malick ñi ngi appel assurance demain. mi ngi noonu ñi ngi moom mi nga xamante ne bii moo jiite ARELS moom nee na situation bi am ci bi nga xamante ne bii moo am ci dëkk bi neexu ko ba tax na mu yëkkati si kàddoom woote dal. wante woote li nga xamante ne bii moom mooy jàmm wante ki nga xamante ne bii moom mooy assurance moom tamit mu ngi weddi nee na tuumaal yi nga xamante ne bii ñu ngi koy tuumaal mbëri naan ay nervi lan amul tey amul ëllëg dëgg la Mbaye Babacar Malick ngi moom mooy président ARELS su moom mooy association des responsables des écuries et de lutte moom nag dafa xëy seq waxtaan ak journal suñu laam li ñu fay def mooy woote calme ci situation bi nekk ci dëkk bi nee na daal mi ngi woo képp kuy responsable écurie wala ngay mbër mu wala nga revenir ak nga dal nga te nga euh, bàyyi yenn yi ngay def ci bu dee yaa ngi koy def nga bàyyi ko te dëkk bi amaat jàmm wax nañ ci également assurance assurance moom dañ koy tudd ci affaire nervi yi moom nag mi ngi koy weddi nee na benn agent la ci ECAT euh, liggéeyam la fay def mais nekkul nervi euh, mi ngi également fa yéene porter plainte nit kii di baala baala si balla si nee na moom moo joxe information boobu te dina ko porter plainte ca naka noonu nag kii di doomu dégol boobu xale Pikine ba booy Niang daal dina ci àddu mu ne ça fait mal pour notre pays mu ne lii mu gis dafa nekk la nga xam ne lu ñaaw la ci réew mi boo Niang moo yëkkati yooyu la kàddu nee na gis Euh, neexu ko te mu ngi koy naqar lu baax a baax te rafetul ci li nga xam ne moom mooy deru Sénégal la sax. dëgg la may Babacar démb la boo Niang def benn vidéo publié ko ci réseaux sociaux yi envoyé ko également Leewtoo TV ñu traité ko moom nag li mu wax ci vidéo boobu nee na mi ngi ñaawlu lu xew ci dëkk bi euh, toj yi kaas yi saccage yi ñu def ak matériel lu jàmbur yu ñuy yàq. léegi daal mu ngi woo population bi wala jeunes yi ñu garder seen calme te ñu manifester wu sans violence mi ngi invité également euh, autorité sénégalaise yi ñu jël seen responsabilité ba jàmm mën a ñëwaat ci dëkk bi. ndax Assane jàmm mooy lépp ci kaw jàmm ci nga mën a amee lépp boo amul jàmm doo tal dara. waaw jàmm ci la lépp xaj euh, comme ni nga ko gisee tey bu ngay xëy euh, mbedd yi yaana <laughs> te loolu lépp situation bi ak waral. Uh-huh. bu doon ne ñu ngi ci jàmm oto yi lépp ñu ngi daw mais mbedd yarax na trop trop trop te xew ci dëkk bi moo ko waral. yàlla yàlla doolu jàmm. ni jàmm di dellu si côté àddu aussi mooy Auguste Auguste mu ne je suis pas nerveuse et j'aime mon pays. Auguste moom tamit euh, moom weddi na tuumaal yi nga xamante ni bii moom la ñuy tuumaal mbëri Auguste nee na man. du ma nervi tey du ma nervi ëllëg ndax li ko waral mooy dama bëgg sama réew te sama réew rek laa moom laay ndamoo moom laay tiitaroo. dëgg la Mbaye Babacar Auguste dafa envoyé message bi pour inviter mbokki mbërëm yi ñu xam ne ñoom du nekk fii di nekk ay nervi wala di toj wala di servir pokki politiciens yi ay ay ay bras yoo xam ne nii dañu permettre violence di am ci dëkk bi moom nag mi ngi appel mi ngi lancé benn appel mbokki mbërëm yi nee na moom du du nervi ndax dafa bëgg dëkkam. ma nga noonu Ousseynou Gueye patron de Ousin Production organisé à huis clos si l'État nous appuie. moom moo jiite Ousin Production Ousseynou Gueye moom nee na su fekkee état bi jàppale na promoteur yi moom pare na pour organiser li nga xamante ne bii moom mooy huis clos. dëgg la Mbaye Babacar Ousseynou moom mooy pré moom mooy patron euh, Ousin pro production moom nag euh, waxtaan la xëy seq ak journal suñu laam li mu fax nee na moom pare na pour tëgg. bu dee état bi pare na pour tëgg à huis bu dee état bi pare na pour jàppale promoteurs yi nee na également day roy ci Gaston Mbengue nee na méthode Gaston Mbengue daal moo ko neex ci moom ba mi ngi koy rey pour que euh, promoteurs yu mag yi fi ñu àgg màgg fa nee nag yàgg naa tëgg ay komba foofu ci parcelle nee na yàgg naa tëgg combat Siteu Zarko Guy gi Marley Baye Peul booy Jules ak Nandi Fall ñi ñëpp daan na leen tëggal combat foofu sa parcelle Mbaye Babacar naka noonu kañu sekkal waxtaan ak journal suñu làmb muy suñu père Gaston Mbengue la Don King de la lutte sénégalaise ma war a tëgg làmb le 4 avril nee na nag moom mu ngi déglu situation bi nga xam te ne moo am ci dëkk bi mu ngi déglu rek su af yëf yi dalee mu tëgg su yëf darul nag kazaalika incha allah yëf yi day dal bu neexee yàlla sax incha allah ndey mbàkke loolu la suñu papa Gaston Mbengue wax moom mi nga xamante ne bii ci ay événement yu mag rek lañ koo xamee mu andi la ñu événement bu rëy la 4 avril incha allah bu ci yàlla am Lac de Guiers 2 ak Eumeu Sène moom nee na li am ci réew mi mi ngi bàyyi xel bu baax a baax mi ngi ñaan yàlla lépp dal ndax mu mën a amal combat. dëgg la Mbaye Babacar ñortu nañ ne affaire yi dina dal incha allah affaire yi war na dal te autorités religieuses yi wax nañ ci. te yaakaar naa dina mujj ci jàmm mais comme ni nga ko waxee Gaston Mbengue écoute la situation du pays noonu la ko journal suñu la am waxee comme ni ko xamee Gaston Mbengue moo tëgg combat Lac de Guiers ak prévoir ko 4 avril bi ni ñëw. ñu am yaakaare nag ak situation bi ne mel est-ce que du continuer fii ba 4 avril mais yaakaar na ne du fa àgg en tout cas daal li ci mën a xew mooy Gaston mu ngi déglu situation actuelle nu mu demee rek pour que mu mën a doxal ay programme mu ma nga noonu nag ca la ñuy jeexalee journal euh, suñu lam dem ci xam ne mooy journal record ca noonu tey 8 mars 2021 mu mel ni record dafa dékk micro bi ñi nga xam te ne mooy jigéenu ñu yi pour sargal leen ku ci mel nii ni euh, Aïcha Faye yaakaar naa ne. àdduna ci wax na jaar-jaar yi mu jot am ci làmb Mbaye Babacar. jërëjëf Ndeye Mbacke record dafa ñëw ak ñun ci li nga xamante ne bii moom mooy 8 mars ñëw ak jigéen ñi nga xam ne ñoom la ñu gën a ràññee ci wàllu làmb ci at mi ku ci nekk euh, ku ci record def na ak yow waxtaan nga wax ko li la gën a marqué ci ci ci làmb bi. honneur aux dames loolu la journal Récolte def tey tey le 8 mars mu bëgg rendre hommage jigéen yi looloo tax tey mu invité ay jigéen rek ci page am ba page sport am bi euh, Abou ma fa nekk nag jot na seet ak waxtaan mu ay Faye Aïssa Faye journaliste la ni ko mel ni Ndeye Kumba Fall ak euh, arbitre bi di Tending Diouf ak Isabelle Samb ku nekk seq na seeg waxtaan euh, Aïssa Faye moom lu ko gën a marqué nee ne site bu mu defoon ci benn stade dem fa xam naa daan fu mu métti loolu remarqué marqué na ko ci carrière am Euh, waxtaan également ak Ndeye Koumba Fall euh, Ndeye Koumba Fall moom li nga gën a marqué mooy exclusivité bi mu amoon nag euh, promoteur bi ñu tuddee woon Petit mbay ñëw na également ak ci Tening Diouf Tening Diouf benn arbitre la bu jigéen yaakaar naa moom rek moom mooy arbitre ci jigéen ci lamb ji moom nag li mu wax mooy première combat bi mu doon ki arbitré Dakar marqué na ko trop ñëw na également ci institut yu muy jot ay saaga yu muy yu muy yu muy jàkkantoo wax na également ak euh, Isabelle Samb Isabelle Samb actuellement moom mooy présidente commission euh, lutte simple ci foofu lutte olympique foofu sa CNG moom li mu fa wax moom mooy problème mu jigéen ñi ci làmb ji moom la revenir. mu nga noonu Assane loolu moo nekkoon li gën a fës si boobu xibaar yi Mbaye Babacar lan ngeen tàggatoo. waaw naa jaajëfal ñëpp rek ñaanal ñëpp jàmm encore une fois di sooy tawaat bu baax a baax jigéen ñëpp bonne fête di la ñaanal jàmm ak salaam wante Ndeye xam nga tey mooy anniversaire u Yacine Fall nekk euh, suñu rakk nekk suñu jigéen ci biir kër gi moom mooy borom le 8 mars ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax anniversaire u jàmm di ko ñaanal fan wu gudd ak wér gu di ko ñaanal projet yu ay projet mi yëpp mu mu atteindre ko ci barke Seydina Mohamed barke Seexul Xaddim di ko ñaanal daal lépp lu mu bëgg ci àddunaam yàlla defal ko ko waaye wante tamit di ñëwaat rek di souhaiter jigéen ñi nekk ci biir kër gi euh, bon fête ku ci mel ni Fama ak Aïda ak euh, matu di leen ñaanal bu baax a baax jàmm ak yandeela borom nekk bu baax eh, jàmm nga noonu Assane Waalo ne Mbacké maa ngi lay remercier di remercier waa Linguère comme ni ko Mbaye defee di souhaiter Yacine Fall joyeux anniversaire euh, nga euh, yàgg ko feete sa projet yi comme ni ko Mbaye waxee nga atteindre ko xale nga mais yaa ngi góorgóorlu yaa ngi sa waar bi góorgóorlu continuer comme ça yaakaar naa dina baax di remercier ñëpp ñu jox di dig daje ak Leewtoo TV ba suba ah dafa mel ni gars yi wax nañ lépp de comme ni ko gars yi waxee rek di souhaiter encore une fois un happy birthday à seen Fall ah di ko ñaanal gudd fan. sutura àdduna ak àllaaxira yaakaar naa na dund rek. borom baax moom mooy diine ak jamono. waa mooy borom diine ak jamono. day def diine ci kaw def jamono ci suuf borom diine ak jamono. mu ngi noonu di profité waale ci journée bi ah di souhaiter jigéenu Sénégal ñëpp ñëpp ñëpp. j'espère que daal dañu la war a sargal chaque jour mais comme tey ñun ñoo ko moom dañuy sargal jigéen yëpp di leen ñaanal jàmm ah ñu jëm ca kanam lu góor def benn rek. ñu def ko fukk comme ni ma koy defee ci bureau bu Assane nee benn mën na ko fukk bu Mbaye nee benn mën ko fukk dañ ko jàppoo noonu di sargal jigéen ñëpp en plus di souhaiter un happy birthday aussi à sama xarit Bigué maam Bigué Ndaw madame Guèye ah yaayu boy be bébé bébé Guèye naa ko dundal dundal dundal cent ans cent ordonnance li nga bëgg sa xol yaa xam yàlla na ko yàlla defal di nuyu mbokku internet yëpp ak jigéen yëpp ñu ngi suivre fii ci Leewtoo TV ca que noonu ah huile j'adore nee naa leen ba léegi mooy gunge revue de l'arène bi mooy duulin bi gën ci duulin nii dee leen ko consommer yéen jigéen ñëpp ak góor ñi sax yow mbay baa ba ko de mënoo dara non mën na na omelette mën na omelette bu baax yaa ne la ci la ñuy defal ndékki yu baax a baax di leen jaajëfal di leen jox dig daje ëllëg ci Leewtoo TV incha